on lui a demandé la suspension donc des poursuites contre les collègues députés et 15 fois sur 16, ils ont obtenu l'accord. Aujourd'hui, donc, nous demandons, pour justement aller dans le sens de la paix et de la sérénité, que l'Assemblée puisse voter cette résolution le temps donc de terminer notre session. Combien de députés euh, sont dans euh, euh, pour l'instant, donc on attend. Euh, la plénière doit être organisée. On vient juste déposer donc. euh, la résolution. On attend du président de l'Assemblée nationale qu'il puisse diligenter rapidement donc euh, cette convocation de la plénière pour que les députés puissent se prononcer. parce que ci un signal fort pour que. part ñu bàyyi nit ñi ñu manifester ñuy manifester tam bañ a def violence. donc euh, loolu moo doon. su ñu leen gendarmerie wax lu tax dugg dañu ne dañu dugg dañu tere décliné ni ñun ñëpp suñuy identité malgré tout le le le commandant en toute courtoisie wax nañu ne mënu leen a dugg parce que loolu la jot ordre parce que il est entre les mains de la justice. alors alors médiation bi am démb avec les chefs religieux ban jàngat ngeen ci mën a. man nekkuma ci place suñu gis ngeen mu ngi noonu ay. on va déposer la résolution.